rakam su indee jabar ci kër gi moom day béru sancal boppam kon nag yaakaar naa ne père Ba man duma ci wax affaire am lu tamit duma ko wax père Ba moo nekkoon suma première supporter di reyante ak waa Fass di reyante ak ku nekk suma revanche am morguer bu may dóor morguer mu daanu ñoom ak directeur am Ahmed Sougou ñoo ma financé woon fu nekk ñu jox ma oto fu nekk ñu dem ak man

ay adversaire ngeen li su jexé da ngeen wara and ànd bokk ndey bokk. wa rahmatullah taala wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh maa ngi nuyu mondu làmb ñep di nuyu sportif yi fi tew yep di nuyu wa parcel 1 ba 26. tay bu ma fi ñëwé dina sawara wax. gars yi ñu déglu waay ah.

di nuyu journaliste yi d' abord di nuyu autorité yëpp yu fi teew di ci jiital suñu père wax père ba du baw commencé saw rek baw Sénégal yëpp la mën naa ko yem bañ a yemale parce que lépp lu waay di yëngu loxo ci muy papa ci papa ak père Ali Sow di papa papa vraiment am nañ contentement trop ñëw teew fii ànd ak papa Sow ci bu rëy bi papa lii jomb moom parce que yàlla xolam rek la koy fay nit bu baax la du tànkam kenn xam nga ku wootee lu mu ndaw ndaw moo ngi fa ba tax na moom kese kese kese du wéet mu du mës wéet fu mu nekk ak lu mu dugg loxo waa parcel ñëpp a ngi ci am na li nga xam ne mënuñu ko wax xam nañ ko maa moom ci biir mais lii suñu yëpp lay doon bu soobee yàlla dañ koy ñaanal incha allah yàlla may ko ndam d'abord ci combat mu jëm équipe bi nek équipe gën a mag inshallah yi ñuy dégg. beaucoup de choses à prouver ça te laisse beaucoup de choses à montrer. waaw góor waaw góor bi la wàcc jotagul Papa saw tàccu leen ma bu baax a baax a baax Papa saw merci beaucoup. mbooloo mi ñu ngi nuyu bu nekk si tur di jégalu nag bi tàng na ñu leen di jégalu bu wér rek wax ni booy taxaw association mel nii ànd seeg sa waajur tàng mu jox la ndigal ñëw teew bi loolu rek dal xel. waaw suñu waajur bu góor di Aliou ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ko sàpp ñaan bu baax a baax moom ndax seetaanuñu benn yoon dëgg yàlla di tamit suñu père père ba bi nga xamante lépp lu ne rek mi ngi ci. lépp lu ne soo ba ngoon leen gërëm di leen sant yëpp ku lim rek di nga juum ñu ngi ñëpp ku nekk sa tur sant mooy tribune bi ñëw officiel ñëpp nuyu leen ñëpp nuyu leen ñëpp sama wax dëgg yàlla sama xol sedd na trop waaw di ñi nga xamante ne ñoo fi daje ñëpp ñi fi daje ñëpp amuñu seen fay ñu ngi leen nuyu di profité aussi waaye yàlla mooy dogal ànd yàlla mooy dogal tàggoo maa ngi leen ñëpp écurie Fass yëpp maa ngi leen nuyu si tur Abbas Ndoye leen ne sàkku ñaan taxawal naa mbir maa ngi leen sàkku ñaan ñu sax ma ñaan li ma jëm ni yàlla dafa ma ci ndam incha allah waaw di profité rek bon ndax bon bu ma ubbee école bi mel nii dama ko war a ubbi sama ay morom rek ñoo ko fay ubbi wax yàlla mais dañ koy ubbi autrement autrement mooy yemuñu si bëre simple ak bëre rek boo gisee ñu dem seeti ku mel ne Laye Ñombor

Modou bu nekkee roi des arènes bëgg nañ beneen roi des arènes ak champion du monde champion d' Afrique loolu la ñuy loolu ñu bëgg a formé ci ñëpp nag di profité nag di remercier Modou xarañ Lo bu baax a baax a baax ndax ku ma ku ma bàyyi ndax Modou xarañ Lo bàyyi ngaa ku ma war a bàyyi ndax booy la boo xamante ne nii xoolul succès xoolul xaalis respect la am wàccee boobu ba suuf fu ngeen ànd wàccee boobu ba man nag ku ma yëg dama faal ma faal dama faal te moo ma si boppam kon dina xum Modou Lo sax su ma gis dama koy téye kon nak maa ko sant bu baax baax di ko nuyu turu benn gërëm ñing ngi waaw di profité nag Rachid académie nag bi ñu ko installer biir parcelle c'est pour parcelle yëpp parcelle yëpp amuñu frontière waaw di wax ne dal entraîneurs yi sant na len monde lamb yi fi daje yëpp ma ngi leen sant di leen gërëm di sant la presse aussi amuñu seen fay wax deug yalla man sama xol dafa seet ndax war ñu wuy seen rek dafa neex sant na len gërëm na naa leen wasalaam jërëjëf Karasis am